ngoog euh, mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen xëtu yéen kaay fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéen kaay bi jiitu ca fajar euh, ci noonu la xëy jiitu ca assemblée euh, nationale bi ñëpp ni may gët ak nopp ci jamono ji ci projet de loi goo xamante ne jëm nañ ci soppi li nga xamante ne mooy code pénal ak code de procédure pénale ndaje ma tey ji lay doon ci assemblée nationale yéen kaay bi di Walf am ci taxaw seetlu xañ sañ-sañu askan askan wi jëm ci wàllub euh, am lu la metti nga war indi yoonal ci réseaux sociaux yi yéen a bi gis ne nguur gaa ngi ci tànk ñañu duppee ay terroriste yu bees Walf Quotidien taxaw na itamit ci opposition bi euh, taxaw nañu tembe ngir jàmmarloog njiitu réew mi euh, Macky Sall Serigne Thiam di jàngalekat lam ca gis bi le projet de loi ne lii bu jàllee nooteel lay doon ci opposition bi opposition googee sax ne duñu seetaan mbir yi di jàll ci assemblée nationale mu ngi ci Walf Quotidien ci xëtam njëkk yéen a kaabi di Sud Quotidien ca pencum ndaw réew mala taxaw projet jëm ci modification code pénal ak code de procédure euh, pénale euh, te ji ci àjuma ji opposition beeg euh, majorité bi daanaka ci fantasiro la ñu mujjee ci biir assemblée nationale déggoo gàkk coow la wundu pencum ndaw réew mi démb Sud Quotidien xëy ñu ko leeralal yéen a kaabi ne opposition bi ku mel ni Cheikh Bara Dolly Ousmane Sonko ay dambo jak Déthié Fall ak Cheikh Bamba ñoom ñëpp taxaw nañu tembe jàmmarloog euh, nguurug Macky Sall jàpp ne bi projet de loi bu jàllee euh, ñoom opposition beeg askanu Sénégal sànku nañu ba noppi ndax kenn dootul am sañ-sañu euh, ñaxtoo ko yëgloog ci leneen ak leneen armeeru ñing jàpp ne opposition bi seen tànk moo di ne fexe ba lëndëmal xelu askanu Sénégal waaye ku jéeg politique bi xam nañu li xew ci bile projet de loi yéen a critique ci xëtam bu njëkk mu ñuy dégtal opposition parlementaire gi daanaka fippu nañu nañu yéen kabi di critique euh, gis ne nguurug Sénégal euh, bëgg na itamit jëmmal googu lépp projet de loi jëm ci soppi code pénal ak code de procédure euh, pénale bokk na ci la wundu googu lépp liggéey opposition bi ne bu sottee rek mun naa doon lu leen sànq ay damboj moo ni waxee député bi xam ne ne bi le projet de loi warta jàll ci assemblée nationale yenn kabi di l'info mu ngi ñuy dektal ne la nar a xew ci assemblée nationale bu ñu deful ndànk mun nañ fee jaaree sax fa fàtte la xewoon ci 23 juin 2011 ndax lu ne mun naa tàbbi tey ci assemblée nationale yéen cabinet FNR ak MDD googule kuréel boole nañu seen doole ngir wutali place Soweto amal te ndefalu ñaxtu ca buntu assemblée national ngir gàntal projet eh, gañ fa bugg a jëmmal méngale kook wàllum eh, terrorisme Ousmane Sonko eh, ne lii bu sottee ñoom ñëpp garde à lañ jëm ca kaso lañ jëm bokk na ci Abdou Bara Dolly Mbacké gis gis ne tamit modification bi de eh, daanaka du kenn ku dul bëgg a fitnaal Ousmane Sonko ak ay ñoñam Karim Xurum Xaq ak ña ca des eh, teg nañ leen loxo demb ndax biig ña nga woon ca eh, buntu assemblée nationale foofee lañ leen tegee loxo yéene kabidi laas si xëtam bu njëkk bokk na ci wàllu terrorisme ak i tamit topp nit ki ka bëgg a ñax toog leneen ak leneen yàq moomelu askan wi yéene cabinet nguur gi génn naa taral daan ya opposition parlementaire bi gis ne tamit duñu seetaan ñuy nasaxal sàmmal ak ak doom doomi aadama Seydou Gueye jàpp ne tamit euh, projet de loi bi ni mel lépp nag dafa jublu ci mbirum xeex terrorisme euh, ci mim réew ak feneen ak feneen MDD ñoom woote nañu ndaje ci assemblée euh, nationale. mu ngi ci euh, las yéen a vingt quatre 24 heures euh, projet de loi modification code pénal ak euh, code de procédure procédure pénale Ousmane Sonko kay dambo jak ñañ ca feggool jàpp ne lii bu buñ ko toggee ba mu ñor tey ci assemblée nationale moo di ne nañu ak ak doom yaa dama rawatina ku jeeg politique bi kenn dootul am sañ-sañ ñaxtu saay boo ñaxtoo mun nañoo jël sa ñaxtu méngale kook mbirum terrorisme yóbbu la ndungu siin opposition bi ne dañ ko jébaane conseil constitutionnel Mame Diarra Fam ne bu kenn des nañu wutali assemblée nationale Guy mari Sagna bu yabo mu fagaru ndax jàpp ne bi le projet de loi bu jàllee ci assemblée nationale Guy Marius Sagna ne juróom juróomi atu wala boog kaso giiru dund moo koy yoot ci jamono ji mu ngi ci 24 heures yéen kabi di le quotidien ci xëtam bu njëkk taxaw na ci loi googee jëm ci wàllu terrorisme yéen kabi ne njiit réew Macky ma ngay gën a seere wiis wa opposition bi ne déet na ko yolomal opposition ñaawlu projet googee nga xamante ne bëgg nañ ci xañ ak ak yelleefu doomi aadama mu ngi ci le quotidien yéen kaay bi di source ne eh, projet googe jaar na jot naa jaar ca commission ca assemblée nationale waaye nag jur na fa coow bokk na ci eh, ndaje mu metti woon lool eh, saagante sax am na ci diggante député ya ci mouvance présidentielle ak opposition bi yéen kaay bi di source moo ñu ko yeggee ne bi le projet bu jàllee lu mu mun a jur ci miim réew loolee la opposition bi xam ba tax ñu fas yéene fippu jàmmarloog nguurug Macky Sall yéen kaay bi di turbine ne loi jëm ci wàllu modification. infraction code pénal ak euh, code de procédure euh, pénale njiit réew mi euh, Macky Sall génne na jaasi terrorisme ba noonu la ko yéene bi xamle M2D ñoom woote nañu ndaje ca buntu assemblée nationale jàpp ne daal bile projet bu jàllee moo di ne askanu Sénégal sànku nañu dootuñu am sañ-sañu yëngu-yëngal ak wax lu leen métti ci mim réew yéene kaa bi di réew mi quotidien ne bu ñu jëlee ndaje yi fii am ñaxtu askan wi bëgg ko méngaleek wàllum terrorisme lii day wone ne démocratie bu Sénégal deltu na ginnaaw bu baax a baax noonu la ko yéenekaay bi xamle ci euh, xëtam bu njëkk libération euh, taxaw ci googule projet de loi modification code pénal yéenekaay bi ne ñu ngi narat bu ci euh, ajuma gu métte métti jàmmarloo mun na am ci diggante nguur geek ku jeeg politique bi opposition parlementaire bi M2D ak mouvement Y'en a marre ne pare nañu ngir jaay seen bakkan ca buntu assemblée nationale Aymérou Gningue mi jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bi ñaxtu tey te moo ne de bokkoon nañu ci liggéey gi sabab bi le eh, modification code euh, pénal opposition bi dañoo bëgg a nasaxal xelu askan wi waaye xam nañu li xew libération ne di xew eh, ci ñaari fecckat Wally Seck Ahmed Thiou ak Amady Badiane doon fóonante eh, ci ab podium yéen a ñoom ñaar teg nañ leen loxo ña nga garde à vue déglu nañu sax moom Wally Seck ci lu yaatu laataa ñu koy bàyyi mu ñibbi këram yéen a cabinet di témoin xëy di ñu seedal ne juin gox xamante ne mun nañ koo jëmmalaat tey ngir fàttaloo askan wi 23 juin 2011 yéen a cabinet ndax duñ ci bu tey ca la nara a xew ci assemblée nationale Ousmane Sonko ak Cheikh Bamba Dièye ne duñu seetaan nguur gi muy jàllale bile projet de loi ngir itamit sànq askan wi ci seen euh, sañ-sañ ak seen àq ak yelleef Vox Populi mu ngi ñuy fitna gi tàmbale gane si euh, géew politique u Sénégal euh, jëm ci googule modification code pénal ak code de procédure pénale Ousmane Sonko ak ay ñoñam jot nañoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi eh, ngir méttit lu nar a xew ci assemblée nationale yenn cabinet guddi gu métti moom la Karim Xurum Xaq ak ñett ci ay naataangoom eh, jot a dund ndax teg nañ leen loxo démb ca buntu assemblée nationale yenn cabinet l'observateur ne teg nañu loxo eh, kii di Amady Badiane ak Ahmed Thiou ñaari fecc katuwaali sek yu doon fóonante ca ba ñuy fecc yenn cabinet nag bokk na ci la xew ci googule dossier procureur moom moo jëlal boppam dossier googule Wally Seck eh, déglu nañ ko témoin la woon ci googule dossier laata ñu koy bàyyi mu ñibbi këram euh, yéen kaabi di l'observateur yi tamit euh, taxaw ci modification code pénal opposition bi ne du ñu nangu benn yoon ñu leen di euh, terroriser maanaam jël lépp gàllu ko ci seen loos jàppee leen ay terroriste ngir bëgg leen a sànq ëllëg projet googee bu jàllee moo di ne ñëpp ci askan wi kenn dootul am sañ-sañu def leneen ak leneen ci mim réew yéen kabi di les taxaw ci euh, googu lépp mbir ci assemblée nationale fala xel yi dem euh, projet euh, modifiant le code pénal yéen cabinet bokk na ci tamit nañu bëgg na sa xale xelu askan wi opposition bi bu ñu sukkandikoo ki jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar mi xamle ne bi le projet de loi modification 2016 ak bi la yoon luñ cey soppi daanaka amul lem lu muy soppi ci liberté publique opposition bi ne seen xel dalul ci googu lépp liggéey les échos mu ngi ñuy dégtal yi tamit euh, Amady Badiane ak euh, Ahmed Thiou ñoom ñaar ña nga garde à vue ñaari feccikat Wally Seck ya doon fóonante yàggut euh, foofee ca Grand Théâtre yéen a des échos moo ñu ko yëggee enquête moom lam ñu enquêtal wot jëm ci loi de finance rectificative ñetti priorité yu nguur gi lam ca fas yéene def bokk na ci lu ëpp ñaari téeméeri milliards yu mu fas yéene jagleel xewum ndaw ñi lu jëm ci wàllu itamit vaccin yi xeex coronavirus coronavirus enquête wax na ci yéen a di euh, l'exclusif ci xëtam bu njëkk euh, promo euh, JED la xëyee projet googee njiitu réew Macky Sall nar a jëmmal foofee ca Malika ca Mbëbës yéen a ne gouvernement beeg banlieue bu Ndakaaru njiitu mi xam la ne ne daal yëg na li askan wi yëg ci jamono ji ba tax na fu mu war a jëm ak askan wi ak sori noonu la ko njiitu mi xamle Omar Sow bu yëmbal sud ak ñam ca feggool yéen a saafonte nañu njiitu réew ak banlieue bu Ndakaaru Sow euh, direct news euh, lancement promo euh, GED yéen cabinet dundaat dundalaat na yaakaar ci banlieue bu Ndakaaru rawatina yaakaar geneen ca Mbëbës jëm ci waa mbalit meek nañ ko war sayto yéen cabinet di alerte quotidien mu ngi ñuy tegtal lu waaju ci daanaka promo GED goge daanaka jéego yu njëkk yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall amal na ko ngir saytu mbalit mi yéen cabinet di alerte lu jëm jëm ci euh, deuxième vague jëm ci manifestation yi tax na nag njiitu réew Macky Sall naa fagaru euh, ci projet de loi goo xamante ne bëgg na cee jàmmarloog euh, ñi bëgg a doxalee ci mbirum terrorisme noonu la ko art alerte quotidien fësale yéen kabi di le soleil saytu yi tamit li nga xam ne mooy décès solide li mbalit yi projet gu yaatu yaatu moom la njiitu réew Macky Sall jëmmal démb foofee ca Malika ca Mbëbës yéene ka bi di l'évidence ne ci googu lépp ndaje daanaka politique euh, safoon na ca sàpp ndax euh, Omar Sow ak ñam ca fegol ca Yombol Sud euh, jot nañoo gàttandu njiitu réew mi Macky Sall foofee ca Malika yéene ka bi di l'évidence moo ñu ko yëggee li quotidien ne li xew ci taxi yoo xamante ñu ko bëgg a jëmmal ñeel bouillon yi maanaam yi nga xamante ne mooy saf-safal yeeg yeneen ak yeneen ba tax na industrie yi nga xamante ne ñoo ca yëgu ñoo ca yëngu ngi ci guddi gu bër setagul saay bu ñu jëmmalee yile taxe euh, jëm ci euh, bouillon yi euh, mu ngi ci li quotidien yéen a cabinet stade mu ngi ñuy degtal euro 2020 kàngam ya ca gën a ràññeeku yéen a cabinet UFOA jot na fësal itamit onze types yi nga xamante moom la jël ci euro 2020 bi tàmbale booba léegi yéen a cabinet les arènes xëy jox kàddu Bekay mbay am na taxaw seetlu ga mu def ci combat gi nar a dox ci diggante Sa Thiès ak Moussa mu ngi ci les arènes euh, suñu lamb xëy géewal kii di Malal Ndiaye ancien champion d'Afrique am na njàngat mu amal ci combat gi war a am ci diggante euh, ki nga xamante ne mooy Modou ak Ama Balde Malal Ndiaye ne bile combat Ama Balde bu ci bëggee am ndam daan Modou Lo faw mu nangoo jël coup Euh, bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom yéem a fu ñu jeexalee xeetu yéen kaay ci baatu askan wi mbokk yi tënk la woon daañu ci dikkat ci yaatal gi lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na jaajëfal ajaratu Penda Diallo Guèye mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoog jàmm ak programme baatu askan wi yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew Algérie.